mais ba muy signé lettre bi nee na ba mu ñëwee ci salle bi la fekk lettre bi. si lay soog a signé Bougane moo wax loolu. ba noppi mu tëg attaqué Mimi Touré. Hmm. humilier ko directement. sur sa télévision. Hmm. xamal ni que Mimi Touré su amee benn problème personnel bu mu war président Macky Sall. mom hmm. yoonam nekku ci na ko lijjantee mais comment Bougane peut aspirer à devenir un président de la République gis ki nga xamante ni dafa am problème personnel ak Macky Sall. gis ki nga xamante ni kakatar moko raw. barki dembu lu mu don xeex ci opposition bi yëpp. li mu don xeex ci parrainage diko tirer ci kaw opposition bi mom tay à sa place mo ñëw tay di dénoncer lool tay est-ce que amna ben cohérence ci hmm. propos Bougane est-ce que amna tay ben véracité ci Bougane limuy wax ni que dafa bëgg diriger Sénégal est-ce que lool tay du conduire par rapport à tout le discours de Bougane Gueye Dany bu mu done utiliser pour pouvoir diriger le Sénégal dafa reposer won ci ay mensonges yo uniquement c'est pour accéder au pouvoir. merci mais mais Tange xam nga Bougane Gueye Dany. waaw a wax ben affaire euh sunu yaay sunu sœur Diaga, jóge na fi. Mhm. yalla nako ko ñu ngi jalé wali Seck ak ñep famille bi yep mais tay yow jaaga bi mu wàccee liggéey ba léegi yow gis nga Sen TV ñu teg alxuraan. xam nga bon remarqué wu xam nga loolu nit ñi remarqué ko. non ñëpp remarqué nañ ñëpp ñaawlu nañ ko parce que TFM TFM. def nañ ko TFM sax alxuraan la ñuy teg. parce que boobu léegi mais pour te dire que. nous avons en jël Sénégal rédaction def plateau spécial Diaga. Sénégal Sénégal ban est-ce que Sénégal xam nañu ban yan genre monstre ñooy demande aspirer a diriger ce pays. c'est bon tay Mimi Touré su bu doon mooy présidente l'assemblée du quitté. du quitter ci Macky Sall. kon ba tay mu ngi wax benen mandat noko Macky Sall def. dañu comme soit cohérent entre ñun. euh, alliance contre nature nak moy jur li xam nga euh, xar ak ak fas buñu accouplé wu. lan lañu am ban façon doom lañu am. moy opposition bi tay bo jëlee Mimi Touré ak Bougane qui n'ont aucun avenir dans l'immédiat parce que avenir politique amuñu ko. xam nga Bougane dina la wax lenn Bougane il ne fait pas de la politique pour accéder pour am pouvoir mais day def politique pour business. parce que euh, y a les taxes fiscalité mais dans tous les pays du monde da ngay fay fiscalité. hein mais tant yow mis sa télé bi ni ni nii dañ lay waa impôt domaine dañ lay jox fisc nga fay fiscal. léegi yow bu ñu lay gis publicité ngay publicité di fay ay millions di dugg. mais tant doo fay mu demaat ci askan bi. BRT bi. Hein, terre bi. waaw lu ñu lan lañ ko defaree du sa fiscalité boobu. mais bon, beaucoup fay fiscalité. Beaucoup fay te buggul ànd nguur. parce que tey boo ànd ak nguur comme yeneen télé yeneen patron de presse yi dañoo ànd ak nguur mais di am ay ay ay publicité mhm. di am ay leen loolu moo leen di permettre ñuy fay seen fiscalité léegi nag loolu nag ci biir loolu man je dis que Bougane man su doon maay Macky Sall sax Bougane du bokk ti ñuy recevoir xamul nga lu tax parce que Bougane Gueye d'abord amul éducation yarul benn amul yar parce que moom moom moom moom daa defee ne euh, télém bi mu am groupe am bi mu am te ñëpp xam nañ nu mu ko amee ñëpp xam nañ ko waa kër sëñ sëñ Mbàkke soxna loo xam nañu dóor bi mu leen dóor donc ñun xam nañ nu mu demee donc loolu jaaxaluñ ni kon donc Macky Sall du moromam moom Macky buy seet golo day dem ba nga xam ne parce que xam nga man wax naa fi problème yéen nga problème nationalité mais Karim Wade buñ ne moom français la mais Bougane lan la du naar jógul Mauritanie. non nañu wax dëgg. waaw léegi kooku moom moom est-ce que waruñu woon demande nationalité <laughs> sénégalaise. non naaru saint la. non non naaru Mauritanie la xar daan la. non dafa jéggi non non xar daan la xam nga xar daan boo ko euh, Bougane. c'est pas un sénégalais nañu wax rek da bañ a personnaliser. mais mais mais Karim Wade. mais pourquoi le le cas de Karim ko personnaliser. waaw non nañu waxante dëgg. waaw Tange man gis nga boo ma invité. man je veux parler li ma xalaat xam nga lu parce que kaawu Karim. cas d'école la. Karim parce que français là mais amna ñu nek ay mauritanien amna ñu cap-verdien mais nan ngay mëne accepter un un candidat bu bu sante ku sante wad nga ne du nek candidat parce que du sénégalais ku sante vardini nga ne nga sénégalais la. Ah, c'est ça batay dañuy ñëwaat ci bugg ci buggaan boobu la ñuy légui léegi wax nga ko nga ne su doon sa sago Macky Sall du ko recevoir ñi gis ñetti bourde yu monumental yo xamante ni buggaan def na ko ci walu communication et il dit que il est entouré par des hommes intègres. ci tabaski bi Bougane Gueye Dany dafa taxaw Massalikul Jinaan micro yëpp tiim ko ne képp ku ànd ak makisal doo nit ku baax maanaam am na kilifa diine yu ànd ak Macky Sall nee na ñooñu duñu nit ku baax ñu toogaat Bougane def beneen bourde monumentale ci point de presse ne moom bés bu nekkee président de la république képp ku ñu nee noo sant nga ne ko Gueye suñu la nee ban Gueye nga ne ko Gueye Dany sallallahu alayhi wa sallam lañ ciy teg maanaam mooy gën di mindee <laughs> ñu tegaat ci beneen bourde tey Bougane Gueye il s'adressait au président de la République du Sénégal son excellence monsieur Macky Sall ah. ba mu Gola na golo bi génn ci tool bi ah. maanaam na golo bi génn ci palais wax bu yenu maanaam moo voilà est-ce que tey les Sénégalais le peuple sénégalais war nañu mën a inspiré ci un modèle boo xamante ni c'est un jeune mm. boo xamante ni da nga ànd arrogance mm-hmm. ba pare boole ci loo xamante ne mooy ñàkk teggin nga ne Macky Sall daf la xañ sa ak ak sa alors que parrainage du Macky Sall moo ko joxe c'est le peuple sénégalais est-ce que du peuple sénégalais ñom ñoo woon ni que Bougane mhm. bugguñu la parce que mënuñu la jox 44 000 parrains mais Bougane mënu am 44 000 parrains pour xam nga lu tax parce que une opposition médiatique rek lay def yor na telem di fay ay à la une di jënd ay à la une di fay ñukoy koy revue de presse lolu c'est différent que Anta Babacar Ngom mm. wala

nga xamné tay à part Nelson Mandela en Afrique wax ma ku melni Macky amu fi. actuellement il est le meilleur président. c'est le meilleur xolal bu France sax moo mo moo mun sax bu France. du ñoko ñoo sont les Africains ñoko wax. dama né président France sax Macron sax Macky Sall ko mun. parce que Macron tay bu moytu waa France génn ko bir France parce que yokul dara France. li fi fekk France fofu la ko France dafa delu ginaaw chômage bi dafa yokku. té Macky Sall tay dafa am le grand bond en avant la def Sénégal tay émergence dotul dotul dotul dotul ay wax ni mais émergence de concret la lu palpable ba va préserver son œuvre pour dire que je quitte ayant le droit de faire un second quinquennat je quitte pour bannir nit en ce moment les gens sont là Samuel Do alors que yo yëpp quoi donc man je pense que euh, euh, Bougan il faut que qu'on il faut que ñu effacer ko ci politique parce que ces gens de Bougane Gueye Dany la ñu bàyyi nous ñuy konne dem yore seen média di tarale di mbele mbele ñu may nit ñi jàmm ñun d'accord voilà tay pour ce euh, chapitre yi nga xamante moy 44 recalés yi demandé won audience euh, au palais est-ce que tay des candidats recalés ñoo xamante ne mënuñu am sax parrainage est-ce que war nañu monopoliser la parole devant le peuple sénégalais je peux citer le trio Bougane Dani, Mimi Touré Abdourahmane Diouf ñom ñatt rek lañuy dégg ñuy wax waaw mais lolo, xam nga société civile qui est tâche nous on a une société civile malhonnête même société civile bi mu ngi négocier pour rapport. mais amna ñu honnête société civile. mais amna amna honnête mais euh, quand je te dis c'est comme la la classe politique. xam nga man je dis que Karim bade il est très honnête monaco signé boo ma jox këyit ma signé. il est très honnête mais il est victime du pouvoir passé rek loolu mooy problème mais tey si si opposition bi am honnête ñoo xam ne nañ leen lim.